bi mu jóge di créer mouvement mi itam raxma la ko tuddee te raxma ku ne xam na ko ci arab moom mooy yërmande yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ko yàlla yónni bokk na ci li mu ko gën a wax ci li gën a rëy mooy ne wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin maa ngi lay yónni pour nga ndekk yërmande ci kaw mbindeef yi ak mbindaafoon yi kon moon njaay su créer raxma tuddee ko raxma dafa doon lu am solo te li koy wane li koy tegtal mooy lii dajale joom yàlla yi di leen dimbale di leen xam seeni tawat di ko jéem a faj politiciens yi nag yàgg nañ leen a gis xam nañ leen bu baax ak seeni façon ak seeni manière danañ la jox sax ndimbal pour askan wi waaye du yegg waaye jërëjëf moon njaay ndax it li jig njaak moom mooy njaak wax dëgg yàlla Macky mënoon na di taxaw di jàppalante ak moom ci wàllu askan wi mu bañ koo def kon bu ko ko taxawee mu di ko def waxtu wu nekk ci événement bu nekk loolu dana jar ñu firndeel loolu ci kanami àddina ñëpp xam ne li muy sant Mouhamed njaay wala li ko Mouhamed Ndiaye di wax ne mu ngi koy def Sénégal loolu ñun ñu ngi koy firndeel rawatina am na ko wax léegi ne ci gàmmu ak leneen lu dul gàmmu lépp lo xamne mu ngi xew mu nek événement rek man na wax ne ñu ngi ciy gis seen bop donc ni nga xamne non la Macky taxawé non la maryam taxawé ndax dégg ngeen ni ko mohammed waxé légui te lool bu amé lu muy tektal moy li alquran di wax at tayibaatu li tayyibin wa tayyibun li tayibaati ku bax ku bax rek la ko yàlla di bolé kon Macky bu baxé maryam ñëw taxaw ci wetam gën ko bax kon dañu wax ne ñaar ñu bax la yàlla bolé wax dëgg yàlla am ay sénégalais lañ mënoon nañoo nekk ay sénégalais te bañ a yëg ñu bokk ci sénégalais gi ñu dox waaye man naa wax ne yëg nañ ne ay sénégalais lañ ndax lépp loo xam ne suñ defar la wala loo xam ne luñ bëgg la rek wax dëgg yàlla am ñu ngi koy am ci nuñ ko bëggee rawatina bi biñ jaaree ci bunt ki nga xam ne moom la ñuy jàppale ci bunt président muy Mouhamed Ndiaye Rahma taxawaayam dafa rafet taxawaayam dafa fës ci àddina bi yëpp ñu ngi koy moomale Kaolack rek waaye mën naa wax Mouhamed Ndiaye passé na Kaolack. desiti gi lu xew lu nekk wala ko xew la ku nekk da nga yaakaar dana xool la ma dimbalante yow da nga kem kàttanam da nga nekk ci ak yow da nga ba sa bët weexaat da nga nag muy bisu tam xarit ci eh, bisi iti jullit yi di bis bi nga xamante ni dégg nga mooy mooy mooy mooy fête bi njëkk ci lislaam dégg mu ñëw dimbalante ak doomu adama yi jàppalante ak doomu adama yi taxawu ak doomu adama yi te yàlla tax loolu te loolu duñ duñ ne guleet lii eh, suñu Alioune Cissé Niass wax rek dégg nga lépp loo xamante ni daal dégg nga yaakaar naa président bëgg na ko jaar la ko ci Mondial Rahma yaakaar naa ne dégg balaa kenn jóg mboolem kilifa dina yi nekk fii Kaolack dégg nga ñooy njëkk a jóg ndaxte kilifa diina yi nekk Kaolack soo waxee met na bàyyi wax lew na ñeseen wax leew na keneen euh, wax Touba Kaolack wax ndemeen yaakaar naa kilifa diina yi wër nañ dégg te yaakaar naa ne lépp loo xamante ni Mondial Rahma bëgg na ko li ñuy wooyee ay militants boppam yaakaar naa militants yi foofu lañ njëkkee da nga muy surtout kilifa yii fi nekk nii ñoo njëkk nekk ay militants am da nga avant muy am benn militant da nga loolu na yaakaar naa doon na sëkk tegtal na cër Kaolack du ma ne moom moom Kaolack ndaxte Kaolack yàllaa ko moom waaye am euh, la lu mu seqal nit ñi la lu muy tere doomu aadama la Modou Ndiaye jëfam jëfam du du APR bokk yaakaar rek moo ko moom waaye dañ naan maam jaamu yàlla yi ngay njëkk a wax doon wax na jullit yàlla yi dégg nga maam ñoo ko moom kon dañ koy ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla ak yonte bi dégg nga ab julluwaayam bëgg-bëggam dégg nga ci réew mi rawatina Kaolack dégg nga moom moo ko xam yàlla na ko ci yàlla jiitu ndax da kuy euh, Euh, weexal bëtu doomu aadama yi rek da nga yàlla da yàlla dana taxaw ci sa yitte kon lépp loo xam ne lu yitteem la yaakaar naa te rafet naa ci njot bu baax ne suñ borom mooy jiitu ci loola kon fois di la sant di la bu baax a baax waaye di sant bu baax da nga son excellence da nga monsieur Macky Sall parce que Modou du xool fu ñu ko xool loo wut nag fi muy xool fa la président xooloo dégg nga li muy defee dégg nga président dégg nga def loo kon encore ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ñaan yàlla yàlla ñu ko teew ay déwén